Mhm. Euh, fi ñuy commencé ak yow mooy euh, guerre bi dox diggante euh, ñi nga xam ne ñoo di ay kon mën naa koo tuddee ay journaliste laatu ñuy laal ay animateur rek yu mel noonu diggante ay Aïssatou Diop Fall ak ñaata laa ko mën a tuddee waaw Walfadjri ah waaw Walfadjri en manière boo ko boo ko bëggee tënk waaye ci biir ñoom Salma Ibrahima Fall ci biir ñoom yaakaar naa Modou Diouf la tudd le technicien ci biir ñoom aussi ay yeneen ak keneen kenn ku ci nekk guerre des mots lañ ko mën a tuddee di waxtaan di jokkalante ay baat naka ngay jàngatee li nga xam ne moom mooy boobu guerre nga xam ne dox na ci diggante ñaari euh, organes yooyu muy Aysatu ak waa Walf waaw mhm. waaw xam nga euh, euh, Aline mhm. buñ ne Aysatu Diop Fall ñëpp xam nañ ko mhm. bu dee Salma Ibrahima Sagna tamit ñëpp xam nañ ko mais problème bi mooy Aysatu vraiment euh, xar kanamam quoi du woon lii quoi parce que ñëpp xam nañ dafa am lu mu fi def. Aysatu Aysatu Diop Fall dafa am lu mu fi def Salma tamit am na lu mu fi def mais problème bi mooy maman bi ñuy xuloo kee dañ ko daa kële seen télé lakk quoi est-ce que nekkul loolu dañ am jot rek. maanaam kee dañ koo frigo. waaw. kee euh, kee. lakk. ñu ñu ñu am jot daal nga yaakaar. ah. danga ngaa jàpp ne dañoo am jot. non dañ am jot parce que bi ñu nekkee ci liggéey bi carrément nekkul lii lañ doon doxal daal te tamit euh, guerru influenceur moo doon am comme ñenn ñi nga xam ne dañuy saaga wala di wax loo xam ni nonsense di wax ay wax yoo xam ni jaarul yoon nit ñi di ñoom ñu génn di ci wax mais tey bu ñu demee ba ay journaliste génn di guerre seen biir. Ah. wax dëgg yàlla loolu dañoo war a taxaw. see seetaat seetaat lan moo tax lan moo ko waral. parce que su fekkee journaliste rek la journaliste kese. warul jote ak moroomu journaliste am dara. bu fekkee information bi niñ koy joxee jaar na yoon. te no noonu lañ koy joxe. Mhm. waruñu ci xuloo ñoom ñaar. mais lu tax ñoom ñuy xuloo ci benn information. information yi dafay jaar wala jaarul yoon. lan mooy problème bi. kee wax dara kii ñëw corriger ko kee wax dara kii ñëw tontu ko kon léegi ba pare bu ñu nee journaliste ne da nga jaar ci école journaliste jaar nangam nangam affaire yooyu tey boo ñëwee si Ouzin ni mu koy joxee Aline tamit noonu la ko war a joxe mais bu ñu ñëwee ba Ouzin di ko joxe Aline di ko contre dégg nga Aline tamit di contre Ouzin ñuy contrante est-ce que ñooñu si li taxoon ñu jóg ñu ngi ci ba léegi est-ce que ñu ngi nekk journaliste ba léegi. wala ñoom dañ fàtte métier mi dañ fàtte métier mi wala am ku ci xam ne dafa fàtte boppam ko parce que coow li li ñuy coow noonu nekkul ñoom ñun loolu lañ leen xamee nekkul loolu lañ ñu miinal dafa am lu ñu miinal xam nga tey kenn ku ci nekk dafa am loo jaay sénégalais yi ba sénégalais yi xam la léegi ndax yow boo jógee ci loolu ba nekk ci leneen léegi ndax yow war ngaa mën a nekk ci lool ndax yow war ngaa mën a jàkkaarlook sénégalais yi di leen wax loolu Hmm. da nga siy gis ko xam ne day wax sax ki toogal ne ko i eh, mu ne ko looy tiit buñ dee woote man maay dem. Hmm. est-ce que yow war nga mun ci euh, xibaar rek ak ci jàllale xibaar xibaar. Hmm. ak joxe information. est-ce que yow war nga ci am ak dëgëru fit gu toll mi ne bu ñu wootee maay dem loo naan i kon léegi lala information yi ñuy jàllale pour kan la du pour askan bi. Ah, mais léegi bu fekkente ne yow est-ce que yow nga ñëw rek toog wax ñu li xew ki xibaar yi wax ñu parce que métier journaliste nii lay demee journaliste fii la war a waxee président bi ne damay ñëw une président ñëw une heure et demie journaliste dafa war a lijjanti lan moo tax ñëwul une heure kooku ñun ñii sax nga xam ne duñ journaliste xam nañ ne loolu mooy métier journaliste ak. xibaar bi nga ñëw jàllale ko soo koy jàllale tamit nga jàllale ko ci anam boo xam ni ñu koy dégg dañ koy déglu ba pare mu yeexale leen ba pare ñu am ak xaar xaar loolu pour xool la pour di leen wan seen réew di xool lu jëriñ parce que am na loo xam ni bu ko président bi di dem te nit ñi ñëwuñu du am sens léeg-léeg journaliste moo koy yore fexe ba askan bi amal ko solo ci askan bi mais li ñuy wax noonu ndax li ñuy wax am na solo mais jëm journaliste yëpp suñ ko dajaloon ne la boo mun tënkal ñu ko léegi lan mooy journaliste Alioune lan la. journaliste dangay da ngay da ngay dem fu nit ki mënula àgg. nga utal ko fa information jox ko. non tënkal ma ko ci olof. taskatu xibaar. ah taskatu xibaar. déedéet. fexe ba lu ñu indi ci réew mi. waaw nga amal ko solo. loolu mooy journaliste. d'accord amal ko solo. fexe ba lu ñëw ci réew mi. nga jox ko dayoo quoi. waaw ñoom ñooy wax wax tey su doon su doon marchandise la. Mhm. journaliste mooy mooy tax mu am njëg. mais léegi journaliste bi nga xam ni wax bu ñu indi mooy tax mu am njëg. Mhm. journaliste boobu ndax lii mu ñuy jaay ndax ñoom lu ñuy jaay nii ndax ñun dañ ko war a jënd. vie privée la jaay nii de. effectivement. léegi vie privée lan moo ci suñu yoon ñun waxa xam nga am na ñoo xam ni information lañ seq ak journaliste mais sénégalais dafa am ñu waye di ñoo xam ni vi privée la ñuy xaar information seen yoon nekk ci mhm. parce que tey ñuy xaar information ñooñu bi ñu commencé di ŋayam-ŋayam yi mel na xaj bu koryas dañuy jàpp ñeneen du dëgg mhm. mais yow dooli ba pare kii nee ko sa yaay laa kii nee na ko yow boo dee sama yaay nangam na xool xuloo bi ngeen duggee ci ràññante bi ngeen ràññantee ni bi kii ràññee ni kii doom la ci man kii ràññee kii yaay la ci man xoola loolu rek nga waroon a def sa bopp ba xam ne lii nañ ci dugal respect parce que mag su deful yëfi mag xale est-ce que amul droit def yëfi xale ba pare su fekkente ne yow da ngay jàllale xibaar nekk mag te xamuloo incarnation bi mag war a incarné nga nekk xale aussi xamoo incarnation bi xale war a incarné est-ce que ñooñu war nañ leen jox benn xibaar ñu jàllale ko. waaw mais Jimbori c'est au-delà mun nga def dara defa nit ñi dañ la ciy naw ak maa téye bës bi ak dégg la ma ko tontu mais fekk na yow li ngay tontonte noonu nekkul réew mi loolu lañ soxla wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waxal dëgg. Mm-hmm. man mii sax mm-hmm. oh, xaw naa mën a nekk di def ñoom loolu ñuy def mm-hmm. mais ñoom loolu ñuy def ñun ci ñoom lañ war a xool bu ñu dee reglee ñu wan ñu gaayooñu parce que ñun animateur rek léegi buñ tey booy animé ñu jékki-jékki nga déraper dañ lay wan ñooñu journaliste yooyu pour nga bañ a ëppal mais tey bu fekkante ne ñoom dañoo ëppal léegi ñun ñii la la ñuy def kiñ la war a wan nga yab tegam kooku moo mel ni mbaxal buy bax yow nooy mel waxal. d'accord léegi li ma la li ma la Aliou nga baal ma li ma la li ma la bëgg laaj mooy un en fait au delà xibaar bi ki nekk ki ni nga koy joxee kenn ni mu koy joxe au delà aspect boobu noonu am na lu ko lu ko sax jiitu avant avant xibaar bi mooy euh, Aïssatou Diop Fall bi euh, ji lakkee si di nga xamante ni moom mooy doomu si Lamine Niass bi euh, Ahmed bon c'est pas bi mën naa mën naa ko fàtte ngeen baal ma ko mais moom dafa taxaw ni. dafa taxaw wax Cheikh Niass voilà ah. bi mu taxawee wax ñu lakk nañu lii ñàkk nañu lii suñu matériel lii lii Aïssatou Diop si plateau mu wax en direct ni euh, Walfadjri nañu bàyyi di victimiser wu nañu bàyyi bu leen jafe-jafe rek ñuy wax di victimiser wu ah. léegi loolu moo déclenché coow li ah. loolu moo merloo employé agent wu euh, kii Walfadjri léegi yow wax boobu déjà nan nga ko déggee ndax da nga jàpp ni Cheikh day victimisé wu nga jàpp ni Aziz Diop Fall moo leen waroon wax lu wax. wax xam nga wal fajiri. Mhm. man dafa am benn affaire bu ma ci jàng. Mhm. Sidi Lamine Niass bi mu fi nekkee bëri na lu mu yàqule lu xam ni Sidi moo ko doon defaral mhm. boppam. léegi bu fekkante ni wal fajiri dafa dem ba yàqu. mu mën a toog ñetti fan liggéeyul. ñu ko yor laay laaj ñooñu ñan lañ. waaw mais bu dee si kaaw lakk bi incendie incendie fépp day day dal ah. man incendie day dal day la entreprise yëpp ay matériel yu laalante lakk loolu entreprise waa xam nga tey ay matériel yu laalante lakk hmm. est-ce xam nga télé télé dëgg na lakk une hmm. xam nga ba deux heures xibaar yi duñ ko yëg ñuy liggéey bu jaaree yoon laa wax mais sans dépense lakk bi aussi non xaara xaar moom xam nga Sénégal moom ay télé ñu fi hmm. Sénégal ay télé newuñu fi ay nit la rek yu toog di ooyoo yaa ngi dégg mhm. mais télé dëgg dëgg dëgg mhm. mi ngi mel ni tey tey euh, naka président mhm. xoola du ñu si réew du ñu toog une minute te président nekkul di am mu mu mun na nekk saa bu président di génn président di dugg télé laa la wax vingt quatre heures sur vingt quatre la war di dox télé bu mag programme am dafa war di dox vingt quatre heures sur vingt quatre mais tey xam nga télé bi bi mu lakkee dañoo nekk di waxtaan waxu lakk bi lakk bi lii lakk na lii lakk na léegi ndax lan moo lakk télé bi. waaw ah, mais. ah. yi génn. non xam nañ ko kay. xam nga tamit télé. bu nekkee immeuble bi yëpp. fii mën na lakk. waxal si suuf du lakk. mais lépp àndandoo lakk. sapeur pompier est-ce que xam nga tey bu fekkee kër yu rangaloo nii kër yi di kër yi déparé fii di tàkk est xam nga nan lay fayee lak xam nga ko day tànn kër yi ci diggante bi mu daanee bu dee marché la day tànn marché bu dox si diggante tàkk-tàkk bi ñu jël euh, benn ndaraan ramaat ko bu ko defee ñuy yàqule mu yàmpaat du dëkk mais yow ay ay immeuble yu tegaloo yëpp jàppandoo yaa ngi dégg kon yow xam nga tey lépp loo gis nga Aline mhm. est-ce que doomu aadama war na mën a dund te du xalaat dee ci boppam mhm. li la may ngay xalaat dee moo la war a xalaat nga xalaat si sa bopp ni lii ngay liggéey mun na yàq mhm. am na wala amut kon léegi ñoom dañ doon liggéey te xalaatu ñu yàqule du dëgg ba pare loolu ñoom dañ si war a bàyyi xel ba pare Walfadjri nekkul tele bu ndaw tey boo demee ci télé yu nekk Sénégal gépp koo fa gis employé boo bu fay liggéeyee Walf nga jóge mënuloo njëkk njëkk a yeewu nag mujjee sëlmu et puis boo ñuy jox ay xibaar ba mu yàgg nga ñuy jox sa xibaaru bopp bu yàggee ñun vraiment ban xibaar lañ war a dëgg waxa rek kon yow da nga d'accord ni Aïssatou Diop li ma wax ni sa day victimiser wu da nga si d'accord non déedéet du du ma d'accord si lool de xam nga tey nit génn daan ne ak ñii mhm. seen bagage yi dañuy ñëw di yërëmtalu ci kaw nit ñi loolu nekkul Aysatu moo ko war a wax moom sax dafa war a lakk mu jël ay bagage yóbbu fa parce que foofu kër baayam la mais est-ce que nekkul day observé parce que wax nga ko sànq sa biir wax nee nga Sidy Lamine Niass lu ne dund na ko ci ay jafe-jafe lu ne dund na ko mais duñ ko gis mu onk comme ni ko wolof di waxee waaw est-ce que gisoon tamit ci sens boobu lay waxee mhm. waaw mais xam nga tey déedéet secret biir néeg ku ko indi ci cim penc yaay wax kat bi dafa am loo xam ne bu ko Aline defee yow munoo ko teg fii di ko wax mais yeneen télé mun nañ ko wax mais munoo nekk ci biir télé bi yaa ngi dégg di wax tele bi loolu tamit d'accord ma ci quoi mais bu ne bu nee wal fajiri kii tontu tamit ndax moom mooy wal fajiri. waaw fa lay liggéey. déedéet doo wal fajiri doo wal fajiri. ah mais mooy xaara xaara xam nga Cheikh Niass. bi mu ñëwee ba léegi. tay mu wax ñu lii suba mu wax lee. Mm. vraiment wax ji daal léeg-léeg sax mu ne damay jaay. damay jaay tele bi. kan moo ko tere bu mu ko jaay na ko jaay na ko jaay ba jaay pàkk bi ñun suñu ngalañ newu ci comprendre ngi ni mu wax yow dong doo fi tele seex kan moo téye seex ba muy xataraayu minute bu jot mu ne waaw man sax damay jaay tele bi xam nga loolu moo lay wan ni dërëmam dugg si mais ki ka ñaq teg ko fi yaa ngi dégg bu doon moom la bu koy jaay dina xool xanaa am lo alalu dono mm-hmm. xoolal waxin bu nit di waxee nga xam ne kii dafa doon alal yomb na saa boo déggee fii sax bu ma amee lu boo leen dop dop loo ma jaay ko demal lijjanti jënd ko sanc ko damay jaay kan moo téye seex kan la waxal man ba mu ko waxee dama ne est kii amul client ba pare waxal rek tey nga wax li suba nga wax lee. loolu munul nekk. xam nga ñun Sidi moo ñu miinal benn façon nit boo xam ne nii sa bu nee verte na verte na mais mënuñoo gis tey nga verte suba nga zone ginaa suba nga rouge mënuñu gis loolu parce que wal fajiri man man laa wax de su ma xëyee suba teel information yi may gën a déglu damay déglu war fajiri doog a déglu seen TV ñaar ñooñu laay déglu wax dëgg yàlla mais tey mënuloo di déglu ay nit ñu xam ne problème mu kese lañ bu ñu yoree taabal ju baax tey suba ñu delluwaat ci taabalu dénk